si man loolu laay wër paa bu may aj ba si kaw te duma aji benn yoon ndax sama yaram neex lay laaj. xam nga ne laaxum nësëri. Ah. baaxut ci tudd. man gannaaw ba nu reyal liir bi tudd xar bi ci la leen na leen dem. moom yaa ngi saali. waaw ah. baax mais Moussa buñ la tuddee doom ji bañ ci tuflee ba ne Moussa. gis naa ko bii di bëgg ci la kenn xamul lu muy. Ah, daa soxore soxore tur bi dafa soxore tur bi tur bi la ma soxore. laaxum nësëri kenn du ko du ko toog ci tudd. tur bi la ma soxore nag. waaye nag waaye nag damaa jar tuddee doom bi. am jaar def li mu xam def xamu ko sax. damaa jar tuddee. maaleykum salaam. trois mille deux cent cinquante ñoo fi <laughs> eh Mbaw Mbaw Mbaw may ma ma kañ ko ñaalo gay naa ko daan jël eh Maïssa de laa bëgg hmm. xam naa jom xam naa li

li ma ma ci deret. paa bu neex. Eh, nga ne yow man eh. oh man meex maa ko raw. physique maanaam ku physique ngay wër. très bien ngay wër. dafa mel ni. Ah. tànn sa bu la neex la. waaw ndànk rek. Eh. Oh. leen laa bëgg ngeen ngeen. oh. est-ce que ñeme ngeen ma. bu baax. Oh. rek. ma samp sama ko jiitu ci gën ma wax ak yow. waaye wuyu fii arrière la kii ba mu tànnee du tey da ngaa a di yam. Moussa. waaw yaa fronté combat bi. ba déglul fii lim lay wax. Hmm. amul yuuxu nee na. Hmm. barki Rasulullah. yow jam. daa teg sax sekk ay nax. nan ko encouragé mbaw.

waaye dafa ndànk mu loo combat nga nga jël. xaaral xaaral. combat la avance bi bu kawe. bi gisul lool de. doxal dem ñu eh, eh. dem. doxal daw rek. topp ma ah. Moussa entraîné na woo de. Mbawu encouragé ko ko. wóolu nga sa bopp. Mbawu yàgg naa lu neex. Ah, woo yàqu pëli pëng ba. ay Mbawu yàgg doxal Mbaw encouragé ko ah. kon daal ñu ñu na am na ndam. supporté demal. dafa lu gaaw nag ñu koy xaaraa. yéen daal supporté leen ma lay ñaan. Moussa jël ndambe. owe owe. góor yàlla ñu lay. toog nii tax ah. mbaa ku lay ku lay ku lay daa mel ni mooma de. ku lay sa waay. mooy ana ana kii yu. ah sa waay daa mel ni ah ma koy dee de. waay waay. aywaay lii de moom. aywaay ah Moussa. Moussa. waay. li xew lan la. xoolal li daw. daawul lan la luy kurkuri sama ginnaaw jëm sama jumbax bi ne la. waaye Moussa fii dara dawul. li daw foofu. dara dawul fii. waay xoolal ma waay sama. waay lan la waaye yow tamit nag. waay waay xoolal ma fii yow tamit. mbaa da ngaa rey doomu jàmbur ji. waay waay yéeral ma ndax su nekk xam nga bu gàll xam nga naan dana ko rey. sama tànk yi daa fa daa fa laa risi. sa tànk ya. sama wéy sama kàllaama yi daa fa laa risi. Ah, yow léegi la def. ba mu sax da ngay wax man. gone gi lan la ma def gone gi. Moussa loolu la Moussa. waaye gone gi la la ma def waay. xamal la ne eh, eh, eh, takkal sa gone gi balaa gone yi gi romb fii di xool sa. bu fi teg sa ji kat. bu fi sa tubay ji kat. Oh. waaw jugal jugal jugal ñu dem. waaw gone gi la la ma def. yow daal fi mu toll nii nga ñu defet. jugal ñu waaxul ndànk balaa kenn duñu dégg. damaa bett de. xam nga ne waroo woon ko coow de. damaa bett de ñàkk jom ñàkk jom. damaa bett de yow Moussa jógal waay xam naa ne bu la yaakaaroon ci mbër yalla xam na saa bu demee lamb ba lamb ja jël demee. dafa dafa mel ni sidit yee dagg. sidit yee dagg xam nga booy waaj a këpp da ngay am looy sànni lool tur. mooy daw di wàcc ci ko sënni mooy wàcc ci ko sënni ay lambi jigéen lambi jigéen bu doon neex na Moussa ah. ah. barki yële bi ñàkk jom barki Rasulullah waaw.